li nga xam moo entouré la mort de cette illustre mhm. personne mhm. mu nekk euh, Moustapha Ba ak li nga xam de la liggéey ci réew mi mhm. mu figure emblématique par rapport à sunu gestion financière ci réew mi mu am loo xam daf ko mérité woon ñu rendre ko un vibrant hommage ñu respecter son âme pour que mu reposer en paix mais j'ai l'impression ou bien même j'allais dire que j'ai raison parfois mais bind ci sama page Facebook mhm. mais ce pays a touché le fond dañu war respecter l'âme de Moustapha Ba mhm. pourquoi di tergiverser France def l'autopsie? autopsie mhm. def ni mort naturelle pourquoi ñu au Sénégal ñu def contre expertise gis Nous suñu experts yi ci médecine dañu ëpp xam-xam ñële. Mhm. wala dafa am anguille roche. Mhm. en tout cas lu mu ci mënti doon. Mhm. ce pays est en train de toucher le fond. parce que buñu démé demee bay utiliser la mort d'une personnalité publique. à d'autres fins lolu wax dëgg yalla man sentiment de désolation rek la ci mëna am. dama jàpp ne dañ koy dañ koy utiliser à à d'autres fins. non dama né suñu démé ba koy utiliser. lolu sentiment de désolation rek la ci mëna am. parce que Sénégal légui da nga tu as l'impression que sax dañu commencé oublier la boîte de Pandore. Mhm. Ah. actuellement tous les mots sont répandus. Mhm. wax le bon def le bon. Mhm. nit dee ngay jubilé ñu tëj kaso nit nga kontaan sentiment de fierté jadis da nga doon gis nit bu ñu ko prison même bu fekkee sa pire ennemi Vous li ngay am sentiment de compassion. da nga daan gis nit bu fekkee perdre la vie. wala nit deele li ngay def Vous apporter ko sa solidarité. mais léegi tissu social Mhm. dañu gis ni dafa commencé fissuré wu te dara warulu mhm. muy l'avènement des populistes au pouvoir mhm. parce que nous menons Ousmane Sonko avec sa bande euh, d'irréfléchis avec ses biir te li ñu indi ci réew mi ñun xamuñu ko woon li ñu xamoon mooy réewu teraanga réewum respect réewum ngor réewum sàmm sa kàddu réew moo xam réewum dignité la réewum solidarité réewum bëggante mais tey tu as l'impression que vous avez deux Sénégalais en face

Je doyna wax man nak euh, pas euh, di wax ne mbirum politique daf ci lalu akit euh, le procureur procureur di Ibrahim tous les prérogatives pour def li nga ni la def enquête parce que nak code pénal yi ci may mais